Euh, crise boobu il faut le dire parce que am na ñoo xamante ne boo waxee crise rek ñu jàpp ne gouvernement bu yees wala nouvelle autorité yu yees yi ñoom ñooy mettre les bâtons sur les roues ci nga xam mooy la presse sénégalaise non sa se passe pas comme ça loolu du moom moo am parce que boo xoolee dafa am loo xamante ne moom moo jiitu laataa autorité yi di ñëw autorités yi dañoo ñëw ñu ne dañoo saytu ñu xool ne am na ay këru liggéeyukaay yu bëri rawatina des maisons de presse yoo xam ne fay ñu woon seen impôt wala daanuñu ko woon fay ni ñu ko waree wala ni ko waroon fayee ñu topp leen ci li mel wax leen ne da ngeen war a fay seen impo ndax impôt boobu ci la gouvernement bi di jël xëy na pour def ci yenn ci ay ay ay liggéey yoo xam ne war nañu ko def donc loolu lekk loo xamante ne ñun ñëpp nangu nañu ne loolu moo war a am parce que déjà boo nekkee sa biir kër sax dañ lay naan yow sa bopp da war a fay lempo dañuy gis fàttaliku ci ay jamono sa euh, say wéjur sax dañuy euh, suñuy wéjur dañ doon dem di fay impôt da naan la bopp xaw ma téeméer xaw ma ñaari téeméer donc pour montrer que ne l'impôt mënuñu comprendre tey aujourd'hui en tout cas ci stade bi ñu nekk mu am des citoyens sénégalais qui payent de l'impôt alors que ñeneen ñi fayul l'impôt loolu deux poids de mesures la boo xamante ne war nañ ko dakkal ñoom ñu taxaw ci mu nekk loo xamante ne am na euh, te ñu koy xeex exigeante yi mu indi jafe-jafe nag parce que dafa am ñoo xamante ne yoraloon nañu gouvernement bi euh, gën gaa ci ay million yoo xamante ne war nañu ko fay donc automatiquement bu fekkente ne war nañu fay retard yooyu nga xamante ne fay fay ñu ko woon jafe-jafe lay indi ci lu jëm ci wàllum koom que ñun xam nañu ne les médias du Sénégal tels qu'ils sont euh, wala tels qu'ils sont bëri nañu ay yoo médias yoo xamante ne euh, ci lu jëm ci wàllum publicité loolu la ñu war a dundee mais normalement loolu moo war a nekk yoon mais malheureusement du loolu moo am parce que euh, publicité yi gis nañu ni mu demee lu bëri ci ñoom xëy na pour ne pas encore une fois dut baaraam ci ñoom mais ci ci ci ci ci ci télévision nationale bi lay dem nekk loo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy xarab parce que ñoom déjà fonction publique la ñu nekk euh, ñoom boobu déjà seen déroulement seen euh, fond fond de roulement gouvernement bi moo ko yor donc est-ce que war nañu accaparer wu li nga xamante ne moom mooy les publicités loolu beneen beneen débat la mais li wóor ba wóor mooy soxna Thialla cette crise là ça va perdurer tant qu'aujourd'hui la presse sénégalaise taxawuñu encore une fois xool orienté wu encore une parce que déjà barki de maa ngi ko doon wax jafe-jafe bi nga xamante ne suñu làmb ak li nga xam moom mooy stade am nañu ko ba tax ñoom ñu fas yéene suspendre gum li nga xamante moom mooy seen parution xam nga maa ngi ko doon wax keroog madame on est arrivé à un stade boo xamante ne monde bi dafay dox dafay changer ak li nga xamante ne xëy na moom mooy euh, les nouvelles les nouvelles technologies de communication et de l'information da xool tey jii je le disais j'avais donné l'exemple l'autre fois aujourd'hui da ngay bëgg a mais da ngay da ngay fay pour mën a accéder à ce journal pour lire ko li nga xamante moom mooy le contenu du journal donc aujourd'hui comment faire pour réorienter justement nos presse notre presse ci li nga xam mooy dynamique boobu comment faire aujourd'hui pour ñu appeler les Sénégalais ñu dem ci dynamique boobu parce que on sait exactement ce qui se passe au Sénégal benn journal ngay jënd koñ yëpp moom la ci boobu la ñuy lire alors que xëy na boo jëndee keneen soxla war a jënd keneen soxla war a jënd bu ñu xoolee exactement chaîne de bi nga xam ne moom la média maanaam presse bi di def rawatina la bi ñu jël li ñuy gagné ci benn journal bi c'est minimum minimum wala maximum ay ay ay 15 francs lañ bu bëree bu bëri su ma donc je pense que nga jël loolu yëpp encore une fois bëgg koo bëgg donc dafay indiwaat beneen jafe-jafe mais di wóor bu mooy oui CAP wax na ko def na euh, moom mooy ndaje jot na pour état jàppale li nga xamante moom mooy la presse sénégalaise et le président Bassirou Diomaye Faye l'a dit ñu nekk situation bu bi parce que la presse aujourd'hui jàpp na ci combat bi la presse aujourd'hui on sait l'importance de la presse ci lu jëm ci wàllum démocratie donc aujourd'hui on ne peut pas vivre sans une presse mais une presse responsable boo xamante tey jii li nga xamante moom ci situation euh, bi ci biir bu Sénégal ñoom nañ ko mais li wóor bu wóor mooy foofu am parce que c'est des fils de Sénégalais qui y travaillent foofu njàpp foofu njàppandal am qui ont qui ont investi dans cette presse sénégalaise aujourd'hui aujourd'hui li nga xam donc en un moment vraiment je pense que aujourd'hui encore une fois war nañu toog xool naka la ñuy def pour pouvoir sauver ces ces ces ces maisons de presse yi nga xamante ne c'est des c'est des sénégalais ñoom ñoo ci gagné seen vie et c'est important pour li nga xam mooy gouvernement bu Sénégal. d'accord ci ci benn seconde ci lii nii. j'ai vu que